moom waxuñ ne du am Sénégal waaye na jàpp nañ ne téeméeri at ak juróom-benn wala yu mat fukk mu ngi pii ni ci kawlak tey ci yoon benn commune ci quatorze communes yi waratul woon a jooy dara parce que Sale li mu jëlee ci suñu réew mi xëjut ci quatorze communes yi pour defar ko beneen bi mooy bu ñu seetloo boo waxee ñu ne alors emploi amu fi anka kay emploi am na fi nit mooy taamu nit mooy taamu buñ ne emploi ne Nessalé dafay def emploi ana emploi yi mu utilisé woon Kaolack ñaata ci ay ñii def nañ accident ñii dee nañu ñii pay leen seen payuñu leen seen i àq ak seen i yelleef boo xoolee tirbinal wala nga xool ci rajo yi mu ngi am problème ak personnel am yi nekk Kaolack lu mot cent tàngam personne yoo xam ne payu leen doxu leen seen àq donc bu ëlbatikuwaatee ñun ñu gis ko muy dox guddi di dox bëccëg ak ñenn ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo ko fi nekkal bu boobaa ñu ne dañuy teel a jóg. wax ak waa réew mi wax ak autorité administrative wax ak justice ñun na gëm nañ suñu justice parce que dëgg rek moo ko ñor atte nañu jox nañu dëgg gëm nañ aussi la ma waxoon ci at yee passé mooy la ma Macky waxoon doo protéger kenn te loolee ba léegi mu ngi fiy wéy dañuy bañ nag la daloon waa ambaan la daloon yeneen réew bi bu ngeen xoolee saa bu guerre amee suuf moo ko andi ci lu ci ëpp ñun waxuñ pétrole ñoon waxuñ dem ci gaal yi ñun waxuñ leneen xam nga lan lañ wax lii ñu yàlla séddee nañu ñu ko fi baal liñ ci war a exploité bu jotee danañ ko exploité te tubaab bi yem ci Salin bee yem ci Njaafaat gee yem ci Kën Bukki gee bu ñëwee waxante nañ te dëgg rek Salin est-ce que réellement xorom la soxla mais boo toppee tali bi de Fatick ba Kaolack tali bi xorom la na jël xoromu gaa yi jot a génn. nga xam ne ay baadoo lañ xamuñ sax pour ñu jaay seen xorom mu di ko jënd traité ko comme ni mu waree moom mu egg mu génnee ko ci rew mi bu dee xorom rek la soxla xorom a nga fi am pagay yi produire nañ xorom ay tonnes yu bëree bëree bëri. dañuy maslaa ngir dëkkandoo xam ne lii dana jàll ñu bokkaat ndey bokkaat baay félicité naa nag comme courant mu ngi ñëw mais sa n'a rien à voir ak tubaab bi tuturaat site bi désormais nañ bàyyi site bi buñ ko bàyyiwut maa ngi maa ngi alerté sénégalais yi de. la daloon waa mbaan lay bay mu yegg si ñun kenn xamul ñuy problème waaye kenn ëpp ñu fula kenn ëpp ñu fit lépp lu ñu andi buy xaaju guddi aussi danañ ko jëndanteeg ñoom sëñ bi 33 millions ñu dina ko gis di ko wax ci waxu lii cinq hectares sëñ bi ne den xel mun naa nangu loolu wax leen est que xel mun naa nangu loolu bindoon nañ lettre ñëpp nag mboolem autorité bindoon nañ la lettre du DSCOS du urbanisme.